bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacunaa wanfaanaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy bàyyi xel di ñu topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame bi ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi de Mohamed Diawo jallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli si yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa duñu dañ di ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala muy xéewalal xéewal bañ doon jëfandikoo waxtu si néew ci ginnaaw mu doon ñaari xéewal benn bi mu jagleel ko mboolem mbindaafoonam yi beneen bi nag mu jagleel ko xaasatan lil muminin aw lil muslimin mooy la mu jagleel jullit ñi te mooy waxtu julli fajar bañ doon joxe waxtu su néew ci ginnaaw gannaaw bu ñu déggee noddkat bi muy woote woote bu mag boobu nañu julli fañ ko jullee mbooloo ya fu jullee yal ñu yàlla boole nangul lañ doon jaamu yàlla amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne ñu ngi leen doon waxtaanal lenn lu aju ci la nga xamante ne mooy laburi yàlla nattoo suñu mbokk yooyu noonu am tolof ci lenn ci Sénégal oriental di côté Tamba coté Bakel wala Kédougou mu doon fayadaan inondation mu doon ndox ba leen jëlee seen béréb woowee kon ba léegi askanu Sénégal nag askanu jullit lañu ñi nga xamante ne dañoo bokk di deflante seen mbokk solidarité waaye jéggi na sax ci ay jullit yay dimbale seeni mbokk jullit waaye dem nañ sax xattaa ñu ñu bokkalu diine ñay nekk ci beneen diine saa yu dëkk bi tolloo ci solidarité kenn ku nekk day bàyyi la nga nekk kenn ku nekk day fàtte la nga nekk ngir tàllal loxo mbokk bi yàlla nattoo loraange loolu la yàlla bindoo suñu askan ñu di ko dund waaye nag comme buur yàlla tabaraka wa dafa am lu mu wax ci diggante way gëm ñi mu ne ñu innamal muminuuna la fi nekk mooy way gëm yàlla ñi daal ixwatun ay mbokk lañu innamal muminuuna li fi nekk mooy way gëm yàlla ñi daal du ñu ay noon du ñu ay adversaire du ñu ay adversaire du ñu ay wujj du ñu ay noon ixwatun mbokk lañ mbokk yi bu ñu taxawee ci aaya bi rek nar def taaliqaat war ci war a mën a commentaire waxtu su néew duñ ko peeg duñ ko xaaj duñ ko jeexal te temps bi du doy baru yàlla mu ñu bind séddale ñu mu wërsëgal ñu ñu doon way gëm yàlla moo ñu bëgg a yéwénalal suñu mbokkoo walla moo ñu bëgg a joxoñ suñu mbokkoo nuñ ko war a doxale ak nañ lañ ko war a saytoo ak nañu leen ci war a taxaw nuñ ko war a doxalee bu fekkente ne waxuñu ko duñu ko xam nuñ ci war a taxaw bu fekkente ne buur yàlla waxuñu ko duñ ko mën a xam duñ ko mën a taxawee taxawaay bi ni mel waaye ci mbaaxam ci ñewentam ci bëgg-bëggam walla ci cofeelam ba mu bëgg doomu aadama mu ne ñu li fi nekk mooy xam leen ne innamal muminuuna naka mboolem way gëm yàlla ñi ixwatun ay mbokk lañu waaw diw sama mbokk la loolu mbokk géño la wala mbokk meen wala mbokk deret diw sama frère la loolu mbokk géño la wala mbokk meen buñ ne mbokk géño mooy ki nga bokkal ci côté baay buñ ne mbokku meen mooy ki nga bokkal ci côté yaay buñ ne mbokku deret la mooy ki nga bokkal ndey ak baay kon yàlla ne loolu mbokk la ba nga xamante ne ba léegi maa ko installé seen diggante yéeni neen waaye nag am na beneen mbokk bi nga xamante ne installé naa ko na ngeen ko bàyyi xel moo tax mu ne innamal muminuuna li fi nekk mooy mboolem way gëm yàlla ni ah, ah xam leen ni ixwatun ay mbokk ngeen kon fii bi léegi ci commentaire yi bu ñu jëlee xeet day deñ bu ñu jëlee raas day deñ bu ñu xoolee couleur day deñ bu ñu xoolee làkk day deñ bu ñu xoolee dëkkuwaay day deñ fii lépp ay effacé wu lu fiy taxaw uxuwa fillah mbokk ci yàlla mooy taxaw fii waaw mbokk fa yàlla nag bu taxawee couleur amatut xeet amatut dëkkuwaay amatut du fi am mooy yàlla mi ñu bind def ñu lu ñu nekkee mu ne bu ngeen di mbokkoo na ngeen mbokkoo ngir sama jëmm ji moo tax mu ne ñëw innamal muminuuna naka mboolem way gëm yàlla ñi de ixwatun ay mbokk lañ léegi nag mu bëgg a ñoo won nu ñu war a yéwénalee suñu mbokkoo bi buur yàlla ne ñu fa aslixu na ngeen rafetal fa aslihu na ngeen yéwénal fa aslihu na ngeen jekkal na ngeen def lu jekk ci seen mbokkoo ba ma ne ay mbokko ngeen na ngeen yéwénal seeni mbokkoo bi na ngeen ko jekkal na ngeen ko toppatoo bu dee wax a koy defar na ngeen wax wax ba koy defar bu dee dimbalante ak dikkalante moo koy defar kon na ngeen ko def bu dee joxe xettalak wante kenn ku nekk di xettali moromam bu dee loolu moo koy defar kon na ngeen taxawee noonu fa aslihu na ngeen yéwénal bayna seen mbokk ba jaar seen diggante mbokkoo ba ngeen mboole doon mbokk mbokkoo ba ngeen tax doon mbokk mbokk ba dox seen diggante fa aslihu na ngeen ko yéwénal fa aslihu na ngeen ko rafetal bayna axawaykum seen mbokkoo ba ngeen taxa doon mbokk waaw da leen taxa doon mbokk na ngeen ko rafetal la koy rafetal na ngeen inculquer loolu la koy suuxal na ngeen sore loolee la koy tas na ngeen ko sore la koy détruire na ngeen ko sore waaye la koy jëmmal la koy jàmbat lay tax mu jebbi mu meññ na ngeen nekk ci loolu waa fa aslihu na ngeen rafetal bayna axawaykum seen diggante mbokkoo bi na ngeen ko rafetal lépp lu koy rafetal na ngeen nekk ci loolu lépp lu koy xajamal na ngeen ko sore ñaareelu avertissement bi buur yàlla nu ñu ne buur yàlla ne ñoo wattaqullaha na ngeen ragal yàlla ci seen mbokkoo boobu bu kenn wor moroomam bu kenn seetaan moromam bu kenn bàyyi moromam muy torox bu kenn bàyyi moroomam muy xaddi bu kenn bàyyi moroomam muy sonn na ngeen jàppalante seen kémtalay kàttan te ragal yàlla lal ko yàlla nee na nag lama leen sant ni bu ngeen ko defee ngeen rafetal seen mbokkin bi ngeen ragal yàlla ci mbokkoo bi yàlla ne ah laallakum turhamuun dinaa wàccee sama yërmande seen kaw suratul xujuraat aya 10 ay innamal muminuuna ixwatun fi diin fa aslihu bayna axawaykum ida ida qtatala wa xaafu llaha fi jamiil umuurikum rajaan an turhamu lan nekk ci suufu aaya bi mooy tafsir bi mooy innama almuminuuna ixwatun ay innama almuminuuna ixwatun fi diin borom tafsir bi nee na la yàlla bëgg a wax ci aaya bi mooy mboolem way yàlla ñi ay mbokk lañu ci diine fa aslihu bayna axawaykum ida qtatala wa xaafu llaha fi jamil umuur wa rajaa an turhamuun moo ne kenn si yéen bu nekkee ci tolof-tolof moo xam ku ñuy néewal doole la moo xam ku néew doole wàcce ci kawam la te mu doon seen mbokk ci diine na ko taxawee ci bépp mbir bi nga xamante ne moom ngeen ko war a mën a taxawee ci loolu mu nekk ci xat-xat wala ci tolof-tolof te ngeen am yaakaar ne loolu ngeen taxawee mbokk jullit boobu ci la mu nekkee ci tolof-tolof wala ci xeetu loraange ngeen yaakaar ci yàlla ne taxawaay bi ngeen ko taxawee amaana yàlla sàngaleen malaanum yërmande yéen ak kookee kon fekk jullit yaa ngi yërëmande fekk jullit yaa ngi jàppalante fekk jullit yaa ngi taxawee wante seeni soxlay mbokk yàlla ne dina leen muur sama maraanu yërmande moo tax yàlla jëkkale moo tax yàlla jeexalee aaya bi la allakum xëy na bu ngeen taxawee taxawaay bi ma leen sant ni ah turhamuun dinaa leen sàng dinaa leen muur dinaa leen suturaal dinaa leen aar sama malaanu sutura ba nga xamante ni mooy malaanu yërmande kon képp ku bëgg yàlla muur la malaanu yërmande del xool julit ba nga tane ke nekk ci tolof tolof nga di ko suturaal nga di ko taxawee yàlla dina la taxawee dina la suturaal dina la xeetali ci tolof tolof ba nga nekkee yàlla ñu yàlla may kàttan ba ñuy taxawee suñu mbokk julit ya néew doole moo tax raabitatu a imma rabitatul aimmatul islam fi Sénégal ligue des imams et des prédicateurs ñu ngi tàllal loxo mboolem doomu aadama yi mboolem citoyen yi ngir ñu xeetali suñu mbokk ya nekk Podor suñu mbokk ya nekk Bakel suñu mbokk ya nekk Kédougou ñoon dox bi jëlee seeni kir ñu toll ci sàkku ndimbal képp ku mu mun yóbbul leen yóbbante nanka def waaye ay béréb yaa ngi fi yoo xamante ne képp ku nar a yóbbu dara ci béréb boobu ngir nga fas yéene ko yóbbante ñooñu loro ci ndox bi incha allah béréb yañ leen tuddal ci masjidul nuur ba nekk Zedo wala jàkk ba nekk Malick si incha allah loofa fa yóbbante dinañ ko yóbbul mbokk yooyu loru ci côté Sénégal oriental ña loru ci ndox bi yal leen yàlla jàppale yal leen yàlla xettali yal na leen yàlla génne ci loraange bi gannaaw si yàlla def ko xéewal ñeel leen amin ya rabbal alamin moo tax yonent bi salaa ci xadisu nu'man bun bashir radiallahu anhu nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal nu'man bun bashir radiallahu anhu na ko buur yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu way gëm yàlla ñi nii la war a mel te nii la war a nekkee moo tax mu ne ñoo anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal mathalul muminina fi tawaadihim wa tarahumihim wa taatufihim mathalul jasad ida staka minhu uduwun tadaa lahu saa'irul jasadi bisahri walxumma muttafaqun alayh Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee melokaanu way gëm yàlla ñi nu ñu war a mel ndegem buur yàlla wax nañ ñu ne way gëm yàlla ñi ay mbokk ngeen na ngeen rafetal seeni mbokkoo yonent bi bëgg a ñoo firil mbokkoo boobu nu mu war a mel mbokkoo boobu nu mu war a nekkee kon nañ leen déglu ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew mi fm 97.5 na yonent bi ne woy gom yàlla ñi noonu la ñu war a jàppalante noonu ñu la war a taxawee wante su ko defee kenn ku nekk natt sa bopp noo war a mën a taxawee sa wetu mbokku jullit ba soxla ndimbal ndegem boo tolloo ci bëgg ku la xettali ci ndimbal ñi lay xettali noo leen di bëggee xamal ne ki toll ci soxla ki koy xeetali ci la nekke nekkee moom it noonu lay mel jamono bu ko yàlla tegee nattoo bi ni mel ci tollee ni ngay soxlaa ka dimbali ki ci toll tamit xamal ne noonu la soxla ko kay dimbali kon nañ leen bàyyi xel suñu mbokk yooyu sallallahu sallam ne ñu masalul muminin melokaanu woyu gëm yàlla ñi fii tawaadihim ngir ñu war a mën a soutenir kenn ku nekk war a mën a soutenir sa morom wa tarahumihim ak yërmande ba ñu war a am ci kenn ku nekk ci ñoom wa taatufihim ak nooy ba ñu war a mën a noy kenn ku nekk ci ñoom nee na melokaan yam lim nii ñetti melokaan yi nga xamante ne lim naa ko kenn ku nekk nangul sa moroom kenn ku nekk am yërmande jëmale ko sa moroom kenn ku nekk nooy ci sa loxoy moroom bañ a ñagas bañ a dëgër nee na dafa mara dafa war a mel ni masalul jasad ni jëmm yaram waaye yonent bi jëmm yaram daal mooy nit ki waa loo fa bëgg a salaasalaam ne ñu jëmm yaram kat da di jëmm joo xamante ne yaramu doomu aadama da di jëmm joo xamante ne izastaka minhu adu izastaka minhu uduwun benn cir bu amee tolof-tolof tadaa lahu saairul jasad benn cir bu amee tolof-tolof mitit da koy wàll mboolem cir yi bi saxari ci mitit wal xuma ak tàngooru yaram ñu war a déggee ne sibiru bu ganesee jëmm doomu aadama sibiru fu muy làqu ci béréb doomu aadama bi béréb boobu da koy manifester tànk bi day solidarité ci sibiru bi loxo bi day solidarité ci sibiru bi waaw but bi day solidarité ci sibiru bi waaw bi day solidarité ci sibiru bi làmmiñ bi day solidarité ci sibiru bi suñu imam di imaam Dame Ndiaye rahimahullah yan ko yàlla yërëm wa xafisahullah waraahu yan ko buur yàlla sàmm aar ko yaramu doomu aadama ci la bi wax ci hadis bi nee na yaramu doomu aadama de bu dee bëñay métti nee na keroog làmmiñ danaan man de du lekk dara la ma saf walla la ma neex waaw lañu tiimale làmmiñ bi walla lañu tiimale gémmiñ bi làmmiñ bi danaan déet man moom awma soxla ci lii fekk buñ bi wérul fekk buñ bi saafarawul man duma am dara la may dugal sama gémmiñ naan dama koy lekk waaw ndax buñay mitti nee na bu guddi jotee ah bët ne déet man moom nelaw moom pare naa ci moom du ma nelaw de xaw ma kan de man tey damay fanaanee xool moo lu tax bët doo nelaw mu ne déet parce que am na mbokk ba am tolof tolof te muy bëñ suñu mbokk bi di bëñ daal comme moom moo am métit tax na man moom du ma nelaw moom nelaw bu ko kenn xalaat ci man waaw dem sëñ naa xool bi bër set allahu akbar gis nga ñaari cër yi def nañ solidarité ñaari cër yi def nañ solidarité ci la nga xamante ne mooy la xew ci jëmm yaram jooju moo ne ana luy ñu ne bëñ mooy métti bëñ boobu di métti nag moo tax gémmiñ ne man tey duma am soxla ci lekk but ne man tey du am soxla ci nelaw waaw ñu ne léegi ana luy pexe a ah, ñu ne xanaa tànk daal jóg tànk daal moo war a jóg dox yóbbu jëmm ji ci këru docteur ñu xool ana lan moo tax buñ di mitti ak lu koy saafara waaw léegi nag yaram bi def nañu benn composition ñu ne léegi nañ leen xaar bër set bu bët setee tànk dina dox yóbbu jëmm ji ci këru docteur su ko defee dentiste bi dem xool ana lan moo war bëñ bi di métti ak lu koy saafara gis nga kon yaram bi def na benn solidarité parce que am na mbokk bu tudd bëñ ci biir gémmiñ bi moo am tolof tolof kon la yonent bi ne melokaanu jullit ñi melokaanu wéy gëm yàlla ñi ci seen nangulante fi tawaadihim kenn ku nekk nangule muy nangulee moromam wa taraaxumihim ak kenn ku nekk nu muy amee yirmande jëmale ko ci moromam wa taatufihim ak kenn ku nekk lu muy amee nooy jëmale ko ci moromam masalul jasad dafa war a mel ni yaram dafa war a mel ni yaram waaw yaram mooy jëmm joo xamante ni izastaka minhu uduwun ab cër daal bu amee benke-ñenke ab cër bu amee tolof-tolof benn cër ci yaram bi bu méttee tadaa lahu da koy walla saairul jasad yeneen cër yi ci yaram bi bi saxari ci méttit wal xumma ak ci tàngooru yaram waaw loxo day animé jëmm juuju waaw yaram bi yëpp ay yëg métit bu dee sibiru la yaram bi yëpp ay nangoo sibiru moo ne sibiru bi dafa am fu mu làqu ci yaram bi yaram bi yëpp daal di tàng jir boo laalee bopp bi tàng na boo laalee dënn bi tàng na diggi ginnaaw bi yaramu kooku tàng na catu baaraam sax boo ko laalee tàngoor bi da koy sant da ngay xam ni kii tàngooru yaramam bi température bi monte waaw moo ne sibiru bi am na fu mu làqatu ci jëmm jooju waaye jëmm yaram bi yëpp ay nangoo solidarité ci sibiru bi waaw yonent bi nee na jullit ñi nii lañu war a mel ci solidarité kenn ku nekk war a taxawee moromam kenn ku nekk war a taxawee mbokkam ci njaxle bu mu nekk wala ci xat-xat ba mu nekk ba tax na ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala la yonent bi doon ñaan rek keroog bu mu jeexalee julli wala bu mu noppee ci julli saxaabi bi di de sawbaan bun judad radiyallahu anhu nee na kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida nsarafa min salaatihi istaghfiru thalaasan wa qaal allahumma anta salaamun wa minka salaamu tabaarakta ya zal jalaali wal ikraam rawahu muslim mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saxaabi bi di thawbaan bun bajdaad radiyallahu anhu nee na yonent bi salaa sallam nekkoon na bu noppee waxtu julli ba mu daan joxe dadoon wax astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mu doon ñetti yoon ginnaaw si mu daldi ñaan ñaan bi ne allahumma anta salaamu wa minka salaam tabaarakta ya zal jalaali wal ikraam moo ñaan bi la muy tekki mooy da wax ne allahumma buri yàlla anta salaam yaay jàmm mboolem xeetu jàmm yi ci sa nguur la ñu nekk wa minka salaam mboolem xeetu jàmm ya ngay joxe fa yow yàlla la ñuy bàyyeekoo tabaarakta ngàcc gaalaama tabaarakta teddaange ñeel na la tabaarakta mboolem xeetu teddaange yu kawe yi yaa ko moom te yow dong yaa ko médité yaa jalaali yow mi cappaacolle ba nga xamante ne amuloo benn dendandoor wal ikraam mboolem xeetu teddaange yu kawe yi yow la ñu ñeel yow yàlla kon ñu déggee ci ne yow mi julli boo noppee ci julli ba ngay julli waxtu ba nga joxe boo ci noppee nanga nga a xam la yonent bi doon ñaan yàlla sallallahu alayhi wa sallam nga ñaanee noonu yàlla lii da ciy bokk nga jéggalul sa bàkkaar fa yàlla ndax jullit bi saa yu mu julee ba noppi dañ koy ubbil buntu ijaaba ak buntu xubul buntu nangu ñaan dinañ ko ko ubbil ñu ne ko ñaanal lala neex dinañ la ko nangul ñaanal lu la soob dinañ la ko may kon la gën ci ñaan ya ngay ñaan mooy nga ñaan yàlla mu jéggal la say bàkkaar mu sutural la ca bàkkaar boo xamante ne kenn xamu ko kenn xamewu la ko waaye mbokk yi bu dee yàlla dafa def bàkkaar mu doon lay xeeñ ah kon am na ñoo xamante ne duñu xëjog nit ñi waaw bu dee bàkkaar yàlla def na ko ku def bàkkaar nga xeeñ xunn waaw xet boo xamante ne ku la siin ngay ñëw day taf bakkenam kon sutura boobu noonu yàlla suturaal la baakaar ya nga def ba kenn xamu ko yàlla defu ko tamit muy lay xeeñ nit ñi kon gën koo ñaan mu suturaal la ci baakaar ya nga xamante ni kenn xamu ko ci yow te boo ko doon def kenn xamu ko boo ko jëfee ba pare kenn xamu ko kon ñaanal yàlla buur yàlla mu continuer di la suturaal ci baakaar yooyu mu di la ko jéggal moo tax nga ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba mu doon ñetti yoon gannaaw si yonent bi bu mu waxee astaghfirullah ñetti yoon da doon wax ne allahumma buri yàlla anta salaam yaay jàmm anta salaam mboolem xeetu jàmm yi ci sa nguur la ñu nekk wa salaam lépp luy xeetu jàmm ya ngay jox doomu aadama yi ak mbindaafoo ni fa yow yàlla lañuy ñuy bàyyeekoo du ñu bàyyeekoo feneen fu dut fa yow yàlla tabaarakta kawe nga tabarakta teddaange ñeel na la yaa zal jalaali yow miy cappaa cole boo xamante ne amul denn amul lenn lu bokk sa nguur amuloo denn ndoor amuloo lenn lu rax ci sa nguur yay kenn ko xamante ne amuloo ñaareel yay cappaa cole mendum yàlla mi nga xamante ne mooy waahidun ahad ah wal ikraam mboolem xeetu teraanga mboolem xeetu teddaange ñeel nañu la yow yàlla kon mbokk yi ñu di leen fàttali ne bi léegi rek ñu géem a takku defaraat toogaay bi solidarité raccourci bi nga xamante ne yonent bi bàyyi na ko fi ngir ñu mën see mën a fàggu ay xeetu yiw yi nga xamante ne bu ñu ko yàlla fayee ëllëg bés pénc dinañu am mébét bu toll ni yaa layta ñu taxawee mbokk jullit ñu loru ñu taxawee seen wet ba keroog ñuy génn ci loraange boobu kon mbokk yi lii la leen Rewmi FM 97.5 andil ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi waxtaan bi nag jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy joxe xibaar ñu ngi ni taxaw saa'iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina waslih allahumma a'immatina wa wulata umurina amiin ya rabbal aalamiin baarakallahu lii wa lakum fi lqur'aani alcaziim wa nafaani llahu wa iyyaakum bimaa fiihi min alaayaati wa dikri alhakiim aquulu maa tasmacuun wa astaghfirullaha lii wa lakum min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwa algafuuru alrahiim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu